Sonko day santage sëñ Moustapha si njiitu Moustarchidine yi li la sëñ Moustapha wax ci gàmm gi jur na coow nag sëñ Màkk ne ma kaay ma wax la Sonko buy santage sëñ Moustapha nan la koy santage point bu sensible la mais nee ma kaay ma wax la ci loolu ci kenn dul wax Ahmed Khalifa Niass wax na benn waxam ba ne diggante Sonko ak Adji am na lu mu dagatal seen diggante patriote yu bëree bari nag di ko ñaawlu sëñ bi ne ma kaay ma tontu Ahmed Khalifa Niass man benn baat laa koy wax mooy li mu wax digganteem ak Sonko ak li mu wax jëmale ko ci yonent bi l'heure est grave mais sëñ bi nga ne ma seet naa ba gis ne ñi reyoon Aziz Dabala jàpp nañu huitième personne bi mais neuvième personne bi danañ ko jàpp ci ay bis yu néew. neuvième personne bi nan la tudd ak buñ ñu koy jàpp fan lañ koy jàppee ak naka lañ koy jàppee nga ne ma gis naa ko ci seet balaa ngay tontu sëñ Moustapha li mu wax ci Sonko wala amee xalifa Niass li mu wax Sonko ne digganteem ak Adji Sarr daga na la diggante ba. dangay leeral lii ba pare soo ko ñëw nag leeral li nga xamante ne moo xew ci dëkk bi. ok baxda auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim saddit lisaani nawir janaani safi amaani wasit balaayi anqis iyaali min addalaali wa bil xalaali xalit sirayi yàlla borom bi subhaanahu wa taala yow ku rëy ki yow ku ngand ki yow ku gudd ki yow mi nga xam ni boo nee déet waawi kenn du lore waaye boo nee waawi déetu kenn du jariñe benn jaam a ngi nii bu toroxlu bu xeebu bu manadi boo xam ni boo xamul ne ay moroomi jaamam li nekk ci moom duñ ko diglu ba koy topp hmm. moo àndaat ak ay moroomi jaamam toogaat ci sa pàkk bi jubluwaat sa penk bu tedd bi di la wax jaa jëf yàlla di la bàkk di la kañ hmm. di la wax ni lépp lu am ci lu baax na ko sotti ci kaw Seydina Muhammad mi nga xam ne bu amee kenn du ñàkk hmm. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu su ñàkk dëkk bi bëri na coow dëkk bi la ba juna boo xoolee parti patriote yi jàppoon nañ ne ñoom ak Moussa Sidini ñoo àndoon Serigne Moussa ne moo sauvé Sonko mais Sonko euh, daf ko bëgg a def loo xamante ni jàpp na ne àndu ci ak moom euh, point boobu dinaa la ci laaj Ahmed Khalifa Niass waxam ji jur na coow mais neuvième personne bi nga xamante ni danañ ko jàpp nga seet moo la ko wan sëñ Maka Jaxate lan ngay gis ci seet ak lan lan nga mën a tojal ci seet. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonenteem bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga yàlla dafa waxoon ni xul maa yaxbu bikum rabbi lawlaa duhaakum faqad kazzabtum fa sawfa yakunu lizaman mm-hmm. nee na yéen jaam ñi jafe-jafe bu ngeen mën di am njàqare bu ngeen mën di am tiit bu ngeen mën a am ñàkk gu leen mën a dal wala feebar duma leen faale tànk ñaanu leen ma kon suñu borom moo njëkk a wax ni tànk ñaanu leen ma yéen jaam bi lu ngeen mën a am duma leen faale kon moo ko wax ci alxuraan ni xul maa yax bu oo bikum rabbi lawlaa duhaakum faqad kazzabtum fa sawfa yakunu lizaman waaye ñaan googu nag du mën a am lu dut ni da ngaa jiital seet ndax yéen ñëpp xam ngeen ne hôpital sax nanguwut jox nit garab te gëstuwoo ko ba xam lu ko dal ni nga xamee ne noonu la ko hôpital bañee noonu la ko mbirum baytin bañee mm-hmm. kon doomu aadama bu mu mën a doon mm-hmm. balaa ngaa sóobu ci ay mbiram ak aajo jum la mën a wax ak lu mu jàmp jamp jamp mm-hmm. danga ko war a seet waaye seet nag dañ koy séddale ci mbir yu baree bare bari li jiitu ci doomu aadama mooy nit ki mënoo koo seetal te xamoo ci ban biddiw la bokk ci juróom-ñaari biddiw yi mënoo koo seetal te xamoo ci ban buróoj la bokk ci fukki buróoj yi ak ñaar waaye mënoo koo seetal te xamoo ci ban manazil la bokk ci ñaar fukki manazil yi ak juróom-ñett wal qamaru qaddarnaahu wala la yusaabiqu nahar wa kullun fi falakin yasbaxun boo xamee ne la ba noppi na nga xam ban tabia la bokk ci ñeenti natir yi waaye xam lan mooy bisam waaye xam lan mooy heure ci heure yi nga ko war a ñaanal xam sax ban bis nga ko war a ñaanal ba ci aajo ji la doomu aadama bi wax amoo droit ñaanal ko ci bis bu la nekk dafa am ñaan yu ca jaadu ki nga xam ne soxna lay bëgg am na bis bu mu war a ñaanlu ki bëgg jabar am na bis bu mu war a am na bis boo ko war a ñaanal mën na laa woom bis bu ko neex waaye yow boo a a bëgg liggéey wala nga feebar wala ñu kort la wala ñu takk la xala wala ñu néewal la kattan wala lu ko nuru wala nga manqué sécurité kon loolu lépp seet mooy tax nga mën caa mucc léegi nit ki nag boo ko seetalee ba xam ban bis nga ko war a ñaanal xam kulóoram xam cuuraayam xam tabiaam xam jaaro bi mu war a takk xam it boo koy ñaanal gan xib la nga war a jublu da daal di xam ban sarax la war a saraxe bu koy génne kan la koy jox ki koy saraxe lan la war a sol ki mu koy jox lu mu war a sol góor la war a doon wala jigéen ndax ku war a ray la ku wërta ray la ndax dugub lay génne wala gerte wala mboq ma doon loolu lépp boo ko ba seetal nit maanaam aajo ju ma nit mën a am ci lu mu mën a doon ci aajo yi àdduna yi ak lu ko mën a dal saa boo ko seetalee ba xam mbiram boo bëggee faj aajoom ci kàttanu yàlla mi dara tëwut day daal di mën a saafarawu ci diir bu gàtt kon aajo yëpp mi ngi làqatu ci ginnaaw seet kon képp ko bëgg a faj sa aajo faawu nga seetlu ba noppi loolu lañ ci mën a reer alaaj dégg bu soobee yàlla seet mooy génne sarax bi man a faj nit ki dégg naa sarax moom mooy ordonnance boo xamante nii moom rek nit ki mën a jëfandikoo mu faj ay mbiram sarax dana xëcc waaye sarax dana dàq xam nga sarax uh-huh. suñ boroom dafa wax ni walayli isaa yaxsee giñ naa ci guddi gi bu ñuulee kukk wa nahaari isaa te jallee giñ naa ci bëccëg gi bu leeree naññ yi mag mu toll ni yàlla di giñ nag lam bëgg a wax kon lu ko ñor la mu ne wa maa xalaqa dakkar wala unsa giñ naa ci ni ma bindee góor ak jigéen inna sax yakum la sarta seen jëf yi wuute kii ami ween kii amu ko kii di indisposé kii du ko def lan la jublu ci gi ñu métti yi mu ne fa amma man aata wa taqaa wa sadaqa bil husna képp koo xam ne yaa ngi joxe te ba ngay joxe nga ragal yàlla mm-hmm. di saraxe mm-hmm. suñ borom ne lépp lu jàppandi woon lépp lu jafe woon ci yow dinaa ko yombal waaye wa ama man baxi la wastaxna wa kazzaba bil usna fa sannu yassiruhu lil usra képp koo xam ne dangaa nay nu ngu woo génn sarax nu woo dimbale jaamu yàlla yi nu woo dimbali say mbokk suñ borom nee na la nga amoon danaa ko nangu boo doon commerce da nga perte boo amoon société dana daanu boo doon transporteur doo amati benn oto boo doon tukki doo jariñu boo wéroon da nga wéradi kon yow mi nga xam ne dangaa bëgg alal wala nga am alal mu néew nga bëgg mu bari suñ borom nee nga dem saraxi yow mi étape wala sa gémmiñ ji xeeñ wala mënoo am doom wala loo jur mu laago wala mu am malformation wala jëkkër joo am mu mu la wala jabar joo am mu ñaan la baat wala nga jaxasoog say mbokk ba ngeen réeroo muy nekk coowal famille wala nga nekk ci ab société bëgg ñu yokkal salaire munta nekk wala nga tëlee ci adduna ak jaaxle gu la dikkal suñ borom nee na nga dem saraxe moo tax mu ni masalul lasina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi kamasali abbatin anbatat sab'a fi kulli sunbulatin doon téeméeri gub gub nekk andi junni pepp mhm. kon sarax day ful alal mhm. day dàq njàqare moo tax alxuraan ne wala nabluwannakum mhm. bi shay'in min al xawf wal wa naqsi min al amwali wal anfusi was samar basir sabirin nee na saa bu ngeen wéradee wala ngeen ñàkk sécurité wala ngeen perte wala ngeen jaaxle suñ borom nee na sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkiihim biha ah. nee bu ngeen saraxee rek seen tawat ya wér seen jaaxle ya dem seen alal ji ngeen perte mu ñëwaat uh-huh. moo tax yonent bi ne woon daa u maradokum bi sadaqa tawat yi ngeen am yëpp na ko saafara sarax moo tax suñ borom ni sarax dana fekk ko waroon a faatu sax mu teel a faatu loolu suñ tubaa ko kon sarax mooy loo xam ni uh-huh. moo gën a gaaw ci faj aajo waaye dana aajo nga xam nit ki lu mu war a ndax du ñëpp bokki uh-huh. ci samedi bokkut ak dimanche bokkut ak lundi bokkut ak bu ko génneel sarax dana génneel sarax maanaam nature bi mu bokk kon sarax yooyu couleur bi da koy insiste ndax alxuraan ko jàngal kon képp koo xam ne am nga soxla ci sarax wala nga am aajo jàmp wala nga bëgg alal wala nga wéri di bëgg a wér wala nga amuk jaaxle wala ngay sëy tas wala nga ami rab wala loo jur mu dell wala sa doom am malformation wala sa doom dëng di mooy yàlla wala muy jaay dorog ñu koy tëj wala mu nekk ca kaso ba muy agressé wala lu mel noonu a a def ak lan moo gën a gaaw ci toj liggéey yan signe mooy feeñ ci nit ki mu xam ne moom liggéey mi ngi ci moom. xam nga alaaj dégg. Mm-hmm. dama bëgg nga xam ne mooy yàlla gi njëkk am ci àdduna. Mm-hmm. añaan a ko waral. añaan nag mooy yóbbu ci nit nga liggéey nit mu faatu. Mm-hmm. liggéeyal ma nit mu faatu. loolu añaan moo la ciy yóbbu yàlla ci yàlla musal. añaan moo lay fekk nga gis kuy sëy boroom këram fonk ko di ko teral di ko defal lu nekk nga ni ma ko mu tas loolu añaan koy waral mooy fekk nit ku juboo ko waajuram nekk bitim réew wala nekk Sénégal di liggéey di tedd awu jëm ni kii doomam moo njëkk a tekki sama doom loolu duma ko nangu loolu añaan ko waral añaan mooy tax nga nekk ci pénc mi ci quartier bi wala ci koñ bi nekk faak ay nit ngeen doon jànganoo ci école ba nga am lu waa koñ ba ñu loolu ko nangu mu àgg sax ñu àgg resel rey la gis nga Abdou Aziz def xam nga loolu añaan moo ko waral añaan mooy tax nga nekk ci société di liggéey doo am dara nga ñàkk xorom añaan mooy tax ñu liggéey la suul ko ci armeel ngay xëpp deret doo mën a indisposé ndax ku dul indisposé doo am doom añaan mooy tax kenn du la bëgg ku la bëggoon bañ la añaan mooy tax nga amoon alal amoon personnalité waaye amoon succès amoon itam avenir bu baax nekk ca école ba di jàng am nga licence am nga bac am nga master am DEA war a jàppale say waajur sa wujju yaay liggéey la wala say doom bay liggéey la ba ba ba nga ba nawtal la nga génn moo tax bu suñ borom dañu yaa ayyuha alladina amanu inna min azwajikum wa awlaadikum adduwan lakum kum mën a doon ci yéen am ngeen ay noon ci seen i soxna ak seen doom ak ci seen alal kon suñ borom moo njëkk a wax ni faxtaruhum na ngeen wut kaaraange kaaraange boo ko amul doo gudd fan sa alal du taxaw sa wérug yaram dañ koy dégg waaye tax nga ñàkk bere kon liggéey mooy li nga xam ni bari na ci dëkk bi lool ñi ngi liggéey nit ñuy faatu mm-hmm. gis nga ko tàmbali ab sànce mënatut a àgg mm-hmm. gis nga ko jënd oto moteur bu kuule gis nga ko tukki mënut a ñëw mm-hmm. gis nga ko tukki amul dara nekk na bitim réew ñaar ko am mu bàyyi woon ci Sénégal gii ñoo ko raw gis nga koo xam ne société bi mu amoon léegi ma ngay dem fayit ma ngay daanu yaa ngi koy topp ma ngay perte ma ngay am nante ak bàkk gis nga commerçant bu mag bu doon dem siin di ñëw léegi amatul dara gis nga jigéen ji amoon taar rafetoon amoon bayre ñëpp bëgg ko mu am succès léegi mi ngi feebar mi ngi ci lal bi du jug karawam a ngi ruus yaramam a ngi xub amatul taar mm-hmm. mënut am doom gis nga ko doom sax doom ju dof wala doom ci ay rab topp ko mënut ta wax wala muy sàcc mhm. ñu bari ñuy sàcc wala ñuy agressé mhm. wala ñuy nekk di def loo xam ne dañ leen tëj ci kaso yi loolu liggéey moo koy waral mhm. liggéey boobu nag añaan moo koy waral moo tax suñu borom ni watlu alayhim nabab nay aadama bi xaq isxaraba xurba fa taqubila min ahadihim ila axiril aaya gis nga ne kon soxor dana yóbbu nit ak liggéey la a jàpp ak nu la jàppee ak nu mën a def ci yow ci sa alal wala ci sa yaram wala ci sa njaboot a

kon xam na ne cat lu dëgg la cat dana la fekk nga am doom doom ja dëng lool ba jaaxal la cata a jàpp cat dana la fekk nga tàmbale woon benn sànce di ko tabax jékki-jékki amutuloo ko àggalee ba nga mujj di jaay cat dana fekk commerçant bu amoon bayre commerçant bu doxle woon commerçant bu bariwul ay place dem bay jaay place am ngir fay ay bor waaye dem ba am lanteeg banque waaye dem ba génn réew mi ngir am jàmm loolu cat da koy def cat moo la mën a fekk nga déposé benn liggéey wala benn këyit boo yaakaar ñu woo ni bi bis sàngam na nga ñëw nga dem ba ca gannaaw suba ga ñu woo la ni la bàyyi ko waaye cat dana tax ñu war laa takk dem ba mu yàgg déggatoo waa ji joxe woon na war gor ñëwatut cat dana tax nga ñàkk bayre ñàkk xorom ci say morom ak ci say nawle ak ci say àndandoo waaye cat dana tax sax doo mën a sangu doo mën a ñaanlu doo mën a seetlu cat mooy tax ñu jox la garab doo ko mën a jëfandikoo waaye cat moo la mën ci anam yu baree bari kon alaaji dégg cat li ci nekk mënuñ koo wax waaye képp koo xam ne cat moo la topp ak nu mu la mën a toppee ci kàttanu suñu borom bu ñu jëflantee rek am na sunguf yu fi am am na ay alxuraan yu fi nekk waaye am na ay xalwatu yu ñu def ci cat waxuñu dana la bàyyi waaye dootu la yàqal moom bi isnillahi taala loolu lañ mën a leer incha allah ci numéro téléphone suñu Maka Jaxate mi ngi doon affiché képp ku ko ci war dana ko jot danañ waxtaanee ba tey ci cadre suñu Moustapha Sy ak euh, Sonko mu ne def koy santage mais suñ mais suñ Maka euh, jigéen ñu bëri ñu ngi sëy dem hôpital ñu ne leen wér ngeen pourtant ku góor ki tamit day dem ne ko wér mais ba tey doom mënu caa sosoo luy problème bi waa ñàkk am doom rab moo koy waral rab wa man yaxsu an zikri rahmaani nu qayid lahu seytaanan fa huwa lahu xarin wa man araada an zikrillaahi fa inna lahu maisatan dankan yàlla nee na képp ku bàyyi alxuraan képp ku bàyyi sunna képp ku bàyyi saraxe képp ku bàyyi ñaanlu nee na danañu xatal sa adduna ci nuñ koy xatalee wa xayyadnaa lahumul qurana dañ lay boole koy àndandoo gis nga rab dana dox sa digganteeg nga am doom wala doom ji bu juddee laago wala du mën a wax wala du ëndaale ay tànk wala mu gaana loolu rab a ko waral rab mooy tax doo man a am doom te wér nga pelek sa borom kër wér na pelek waaye rab bi mooy yàq ba du ngeen mën a am doom lool rab moo koy waral rab mooy tax mënoo am jëkkër wala sëy boo sëy tas da ngay gis jigéen gu si fukki sëy ñaar wala juróom fukki sëy yàlla ñu ci yàlla musal rab mooy tax ngay mer kenn loolu dara rab mooy tax loo yaakaar mu tas rab mooy tax ngay am alal ba noppi te du la dugg fu am njariñ alal ji day génn génn bu gaaw mhm. rab mooy tax nga gis ab sëriñ sax ba woo ko lu jafe lay doon mhm. rab mooy tax nga jëfandikoo garab lu difficile la kon rab li mu a yàq ci doomu aadama mhm. mënuñ ko waaye rab dalay topp bu yóbbul sawara wa innahum la yasudduunakum an sabilillahi wa yasabuuna annahum muhtadun hatta isa jaana xaaliyaat bayni kon rab bari lu muy def ci nit nga ëmb muy tuuru wala doo indisposé wala sa deret di xëpp wala sa gémmiñ di xeeñ ba ci sa biir nga xam ne doo mën a jigee fenn boo dee jigéen dañ lay daw boo dee góor dañ lay daw loolu rab a ba mu jaaxal la bu ñu jëflantee di nga xam ne yàlla am na lu may bi isnillahi taala loolu lañ ci a leeral euh, sëñ bi ñu la muy nopp bëgg sa jëkkër bëgg la jox la xolam jox la boppam wala nga bëgg sa jabar nopp la bëgg la yow rek du la tala sax trompé balaan da lay jéem a mooy lu gën a gaaw ci nopp waaw xam boo xoolee sëy yu bari mi ngi tas mhm. te wujju peccargo yi ñoo koy waral ñoo lay liggéey wala say njëkke mhm. wala say belle-mère mhm. mooy say yaay jëkkër ndax dañ naan ku jigéen kii ba mu sëy see lañ ñàkk suñ doom ji ma nga bitim réew lu mu liggéey jox ko léeg-léeg tamit nga bëgg nit mu di la teral nga dem di ko nettali say morom ñu inaane la ko liggéey la moo tax nit fa say aajo di fajo waroo koo siiwal moo tax yonent ni woon istainu bil xaddal xewaaji bil kitman li anna kullu sinne maxsud maanaam seeni aaju di leen ko nëbb ndax ku nekk am nga ku añaane loolu njàngale bi yonent bi la waaye tamit da nekk ci kër di sëy wala ci koñ sa borom teral sa borom kër fonk la ñu añaane la kon nopp du ma ko defal kuy mooy yàlla waaye ku dëngoog borom këram wala ku dëngoog soxnaam wala nga bëgg jigéen bëgg koo takk wala nga bëgg ab tubaab wala sax sa patron bi ngay liggéeyal nga xam ne gis nga ni ñi ngi tàmbalee dugg ci seen diggante wala sa xarit ci gàttal jubóole képp koo xam ne ngaa bëgguñ jubal ak sa soxna wala sa doom ju dëng wala nunguwulaa déggal mu dëgër bopp wala sa jabar wala sa ndey wala sa baay wala yow sa doom amoo ci moom njariñ muñu laa jariñ sa doom liggéey na ba tedd waaye sàmba alaar la dañ koy nopp bi nga xam ne daaw bara nunguwulaa yokkal salaire bi wala nunguwulaa defal contrat wala ngay déposé aw lu mel ni permis wala lu ko bëgg ñu noobal la waaja ba loo ko wax mu def ko alaaji dégg liñ ci am nuñ ko wax waaye noob lay doon goo xam ne ci kàttanu yàlla bu ñu ko defee sa semaine booba lay jàpp bu fekkee jàpp da ngay woote waat ñu sa alal bi isnillahi loolu lañ ko a leeral dama dégg ñu nga naan bëri na nit ñoo xamante nii a lu bëri ñu koy def tayuñ ko lan mooy xabtal waaw xabtal ñi nga gis ni ñooy rey nit ñi gisoo agression bi ni mu bëree loolu dañ leen di xabtal ñàkk kaaraange la ñii di agressé di rey ay doomi jàmbor nañ wallahi bëgguñ ko waaye dañ leen xabtal seen wujj yaay leen ko def wala seen doomi baay wala seen mbokk accident yi nga seen ni safar yi jékki-jékki rek di saaraan di këpp oto yu bari yi wallahi dañ leen a xabtal ñu faatu kon ngi woo njaboot gépp maa ngi woo soxna yi maa ngi woo borom kër yëpp ñu wutal kaaraange seen doomi accident yi dana bari lool mhm. yi ma gis muy ñëw bu accès du xaj ci Sénégal deegu baree bare deret ju tuur am ci réew mi génn ci accident ak ci gaal gi gone yi nga gis ñuy dem ci gaal gi dañ leen liggéey waaye teyuñ ko ay xabtal la dañ leen ñu génn réew mi mhm. kon kaaraange mooy loo xam ne mun a ñàkk ci réew mi damay wax ni wa isa saxsaltum faxsiluhu kaaraange nañ ko wutal gone yi ay ndomba yoo xam ne dootuñ xabtalu ñii dem ci géej gi tëyuñ ko accident yi bari sëfoor yi faat gone yi di faat doomi jàmbur tëyuñ ko mhm. ñi koy def ñëpp neexu leen kon loolu ay liggéey la ñuy def ci réew mi ay mystique la waaye ay sacrifice la yu ñuy def ci réew mi di ko tuur di tuur ay deret waaw kon loolu damaa bëgg ñu wut ci kaaraange kon loolu mooy loo xam ne dafa xew ci réew muy xaptal doomu adama muy jël gaal di faatu wala muy accident wala muy këpp oto wala muy agressé dara yi mm-hmm. loolu lépp nag añaanante gi ak xër ci adduna guyaatu gi mm-hmm. moo ko waral kon kaaraange alaaj dégg maa ngi woo ñëpp mm-hmm. nañu wutal kaaraange seen njaboot am na ci ay cangaay am na ci ay jaaro waaye am na ci ay xoob waaye am na ci loo xam ne dañ koy suuroo képp koo xam ne jëfandikoo kenn dootu la mën a liggéey ba jàpp la te képp ku la liggéey ci at ma dana faatu bi isnillahi taala loolu lañ ci mën a dugg ci actualité bi nga xamante ni actuellement mooy lëmbe gàmm gi mhm. euh, si Moussa am na lu ma waxati si gàmm gi mu ne Sonko daf koy chantage point boobu bëgg naa nga tontu ma ci. bëgg naa tamit nga tontu ma euh, ci wax ji Ahmed Khalifa ñas ci diggante Sonko ak Adji Sarr ndax war na koo wax en tant que kilifa euh, yi bokk na ci li nga xamante ni soxal na askan wi nga xamante ni boobu léegi ñu ngi topp ci émission bi. waaw ci suñu Moustapha lay njëkk a tàmbalee. suñu Moustapha day ko xam ne man dama ko estimer. dama ko fonk lool. te bu waxee ci Sonko dinaa ko mën a nangu. ndax ba wax jafee. moom képp lañ doon dégg. wax Sonko ñi muy dem ñëpp. Mhm. man damaa jàpp ne dem si Moustapha Sy moo gën a yéenu maanaam. Mhm. ndax ba si Moustapha Sy toog di ko gërëm di ko sant booba mi ngi cay xat-xat te amutoon di waxale. Mhm. kon yàlla képp taxoon mu di ko wax ak yéene ko jàmm. waaye nag suñu Moustapha it maa ngi koy jéggul ndax sama kilifa la waaye maa ngi jàpp ni kilifa it kenn du ko yedd. ci am mbedd. kon seen diggante mënuma cee wax lu sori. waaye santas nag yaakaar naa amu ci moom xam naa xëy na lañ ko wax ndax léeg-léegi tamit ñi dox ci diggante sëriñ ak ak euh, maanaam ñi politique mm-hmm. léeg ñu waxte loo xam ne waruñ koo wax mm-hmm. waaye si Moustapha bu waxee ci Sonko war na cee wax mm-hmm. bu ci waxut it war na cee wax te Sonko it ku mën a seeti ku dul suñu Moustapha damaa gëm ni suñu Moustapha moo ci gën a jay léegi nag élection législative yii di ñëw dafa am lu ma ci bëgg a wax gis nga ñu bari dañoo wax ne Ousmane Sonko woote gi ko Sénégal yi wooteel dañoo juum maanaam par erreur la élection législative yi nag bi suñ ta demee amaat lañ dañuy gëm ni dëgg waaye bu ñu fa demee wàññeeku kon dañu mën a gëm ni gone yi dañoo wootal Sonko ngir njuumte beneen bi tege mooy Ousmane Sonko dafa ñëw ni réew mi dafa feebar bind ab livre tuddee ko solution ni solution bi mooy faj saafara si ma bëgg a xamal Sénégal yëpp ni livre boobee mu bind la ci ëpp ay loi la ak ay décret ak ay arrêt te loolee saafara soosee munta munta am lu dul ni dafa dem assemblée am fa majorité kon damaa bëgg ngeen xam ne ko ci réew bu ko xasee ba am nag lu mu tirim moo ko kon nañ fexe ba am majorité ci assemblée bi bu dee Ahmed Khalifa Niass nag am naa yaraanga loolu ci dégg li ma li mu wax waaye fa xalaf min ba'di xalfun adaa'u salaati wa tabahu sahawaat ña wuut woon gaa yu ba ñëwee dañoo sànk yoon wa kon moom damaa yàpp ne ci yoonu sànku te la nekk kon na ña ak ña maam ña ñoo ñooñu mel ni ku sànq ndaw ñi ngir bëgg leen ubbi ubbil beneen yoon waaye lam wax moom dara rafetu ci bis bi it jàppoon naa ne Rasulullah yi la ko doon jagleel waaye yëg naa ne Ousmane Sonko la ko jagleel moom nag daa mel ni mënut a supporter Sonko waaye maa ngi koy xamal ni in yansurkumullaahu fala ghaliba lakum ku yàlla dimbali kenn mënu laa gàcceel kon nañuy dox jàmm di wax jàmm te réew mi li fa xew fan yi bari na lool ba sonk toog ak léegi ak jomaay giseel dinaa fi juróomi mbir yoo xam ne mën naa waral guerre civile ndax dégg naa fi coowal ethnie fële ca Médina Gounass dégg naa fi coowal militaire mooy Kandé. waaw dégg naa fi coowal ñaari autorité yu xeex ci biir palais bi. Mm-hmm. waaye dégg naa fi coowal tarixa mm-hmm. te yooyu yëpp bu ci nekk dégg naa fi coowal journaliste. Mm-hmm. yooyu yëpp mën naa yàq réew mi. kon Sonko damaa bëgg mu xoolaat mu xoolaat entourage jomaay a bàyyi xel la. waaw xam nga jomaay lañ fal waaye comme Sonko moo ñu ko andil. moom lañ xamoon. kon lu ñu naqari moom lañ koy moo tax ñu koy tudd lu bari waaye nag jomaay moom lañ fal. waaye damaa bëgg ngeen xam ne Bassirou Diomaye Faye nekkalu fi ab tarixa nekkalu fi ab daayira Diomaye ñëpp a ci yow ki gën a baax ci réew mi ak ki gën a bon ci réew mi ñoo yem ci alal réew mi ki fanaani julli ak kii taxaw di saw di fanaan ca cagaja alal réew mi ñoo ci war a yem kon ni nga war a wàññee ceeb bi wàññi suukar noonu nga war a wàññee yàpp mbaam xuux dafa am ñu koy lekk te yaran yi def noonu nga war a wàññee sàngara ba ci ñiy volé sax boo ko mënee wàññi nga wàññi ko volé nan lañ koy wàññee ko moom jomaay lañ ko dénk bu dee lislaam ji topp giñ ko topp mënuñ ci lor mm-hmm. wa in yàkku kaasiban fa alayhi kaasiba bu nekkee waxul dëgg boppam képp la yor wa in yàkku saadiqan yusikum baadul yuhdikum bu fekkee wax na dëgg nag li muy dinañ a a bi ñu sant yàlla julli ci yonenteem bu tedd damay wax ni loolu aajo faju bu yàgg uh-huh. xëy nit ñi nag dañoo gëmadi uh-huh. waaye lii ma yor nii uh-huh. kaaraange la xam ni damay wax ni kaaraange ba kaaraange jeex. kaaraange ji moo ci gën a wóor. kii biteel la boo xam ne boo xësee ba tëj sa place. képp ku dugg ca place ba teg fa tànkam. dootu génn tànk ñëwoo maanaam ci gàttal. bu fa xësee ba dugg ay jinne ñoo ko fay téye téye tànk yi du mën a yëngatu. téye loxo yi du mën a def or waaye téye bët yi du mën a gis. lii saa boo ko defee sa place saa booy saa booy tëj sa place. nga dem. giñ ñaa ci yàlla ku fa dugg dootu génn du mën wax te day du gis ba kere ngay ñëwaat. kon képp koo xam ne am nga place ragal ñu agressé ko wala ñu dajj place bi wala ñu kàmbir yooyu la comme gis nga léegi ni mu bëree biteel bi la wax ni képp ku ko suul sa place saa boo xamee tëj nga ko ba wan place bi ginnaaw ku fa dugg ci du génn ba kër ngay ñëw te damaa wax ne du gis du dox du yëngatu ba kër ngi ñëw loolu lañ ko mën a leeral incha allahu taala. Euh, tey yaakaar naa ne amati na solo ci waxtaan wu am solo yi ñu seqoon ak Serigne Maka euh, Diakhaté euh, le arabisant Serigne Maka Diakhaté le grand marabout chef religieux di ku bëri xam-xam di ku bëri baatin di koo xamante ni mbokk yi jàngalekatu alxuraan la waaye ku jàng xam-xam la jàngalekatu xam-xam la tamit. kilifa la gu yàlla dara jaal waaye kilifa la goo xamante ni yàllaa ko dénk ko ay sirru mu yàgg cee faj aajo jàmm ñi ku mën a dugg xalaw la donte waxtaanuñ ci tey waaye xaw la bokk ni ci ab liggéeyam ak taal nit ci wàllum wërsëg rawatina problème yi ndaw ñi di am bay tax ñu jël gaal gi moom am na ci solution solution bi mooy déposer visa ñu may la te daf la koy garantil mbokki secret visa lu am solo la ci euh, sëñ Maka Jaxate di liggéey ay ci numéro yaa ngi doon affiché képp ku ko ci woo rek di ko jot yéen ñi ñu doon topp di ñu suivre ci MPROD TV yàlla ngeen bëri jàmm ci darajey Muhammad Rasulullah